client bu ñëw même bo xamul dañ lay orienter expliquer la ba nga xam bu ko defé nga nangu ci li ñu la wax ni wax deug yalla wax ngeen deug li baxna nga dogo a ak ñun dem ñu ñaanal la yalla nga dem ci jamm yegg ak jamm ni pour le moment wax deug yalla am nañu sécurité ndax ñong ko taxaw table bu ne tek na fa ben élément bo xamni ni na maîtriser na limuy liggéey mi ngi taxaw client yi ban xol bañ am pour normal départ même ku bëgg jël nit na amoo ko ku normal dañuy taxaw ni eh sëñ bi dellu nga toppatoo kay la ma la wax. nga jël say matukaay moytu ndax feebar la boo xam ne bii xamuñu ku ko yor ak ku ko yorul. waaw waaw vraiment sel nag ay eau de rek la ñu bu dee eau de bi ñu fajal nii moom la ñu ñëw oto bu départ bu bëgg bu bëgg arrivé ñu am nañu élément bu nu teg dañ koy dugal mu dugg ci biir pompe chaise yëpp mu daj pompe ak eau de javel sel yi nag xaw na manqué moom wax dëgg yàlla ñëpp amuñu ko bon président bi ci boppam demoon na Dakar mais xam naa da ko disi da koo séddaleegul mais ndoxu raxasu yi bi ànd ak savon bi gis nga ñoo bee ne ñoo ko teg ak bii c'est ça waaw wax nga dëgg waaw boobu nag vraiment échec wu ci man yeneen service daal gis naa bu ma fa duggee bala ngay dugg ñoom am nañu matukaay boobu taxaw ci leen la ko nga doog dem nguur gi nag vraiment moom bu ñu gën dimbali ci loolu ndax itam comme situation bi demee na nii te itam ñu bari dañ ñu fréquenté ci garage bi bu ñu sañoon moom fréquentation trace bi affaire bañ a sore ku ko am ñu xam am nga ko ñu delloo la seetlu fa nga jëm ñu toppatoo la faj la ku amul ñu bàyyi la nga dem dox sa voyage terme place bobu place terme place boobu lañu vraiment buñ ci administration mënee jàppale indil ñu ko suñu kinaay ak ñun suñu sécurité bopp daan suñu xol dana sedd ci moom lool noo ngi koy sàkku ci moom daal bu ñu ci mooy dimbali mu dimbaliwuñ ci ak sel bi surtout sel bi surtout ñuy raxasu am na nu sabon bi fii ak ndox mi mais doyul nañ ñu indi loolu sel bi tegal nu ko ci poste bi ku ñëw nu defaral la sa loxo mu set comme ni ma ko gisee ci yeneen jumaa yi ak yeneen fi mbooloo daje da nga ñuy présenté sa carte d'identité bu noo carte d'identité nga ñuy présenté ñu ñu relevé numéro bi dugal ko s feuille de jox ko chauffeur bu mu garder ko carte na booram soo amul carte d'identité doo dugg fii soo ñëwee bëgg a dund da naan la raxasu sëñ bi jox la oto bi nga dugg loolu daal la ñu amagul pour le moment ci garage bi. Euh, mesures yi ñu waxoon yëpp ñun ñu ngi koy respecté ñu ngi koy respecté à 100 pour cent parce que boo duggee ci biir garage bi lave-mains yaa ngi nii kenn ku nekk boo ñëwee raxas sa loxo sel yi ñu ngi fi masque yi wax dëgg yàlla doy na sëkk manqué wul beneen bi ci des ñu ngi identifier client yëpp kenn ku nekk foo mën a jëm ñu ngi lay identifier.

ci biir garage bi oto bu mën a départ client bu ciy dugg kenn ku nekk dinañu xool sa température ba xam normal na wala normalu euh, client yi sax aussi ñoom tamit euh, bàyyi nañu seen bopp xel à 100 pour cent parce que client buy ñëw mi ngi takk masque en général client boo si gis saagam sela ngi ci balay def dara day laal tijji laal selam donc daal vraiment ñu ngi respecté normes yi à 100 ñu ngi continuer di désinfecté oto yi parce que. Euh, service d'hygiène ñëw na fi même ñun ñu ngi am nañu suñu ay euh, alcool 70 ñu ngi koy topp di ko pomper ci oto yi benn bu nekk si biir ak ci biti surtout loke yi fi clients yi di laal ak yooyu yëpp ñu ngi jël di ko pomper jox nañ ko ay coxeur table bu nekk am na ku fa nekk koo xamante ni uniquement liggéeyam mooy oto bu rang mu pomper ko ci biir ak ci biti balaa muy taxaw ci table bi dana fekk moom li mu war a def lépp def na ko. non ñun duñ jël client la jël. parce que bépp client buy génn ci biir garage bi dañ lay identifier ba nga xam ni xam nañ ni kii place bii la jóge place sàngam la jëm cornem am nangam la numéro téléphone am temps la lépp dañ koy jël waaw vraiment bàyyiwuñ ci dara. mu jàppale ñu si ay jumtuwaay fils manifeste yi nga xam ne ñu ngi koy def ñu gën ñu si jàppale ñu gën ko am normalement dañ ñu waroon a am na ñoo xamante ni ñoo ngi leen di jël en charge regroupement yi di leen jël en charge. te ku ne xam ne regroupement yi pendant trois mois ñu ngi toog amuñu benn moyen donc bi ñu déparé ñu jël suñu bopp ay nit ñi nga xam ne ñoo ngi identifier clients yi ñun ñoo leen jël en charge di leen fay te bëgg nañu aussi état jàppale ñu si bu baax a baax comme moom dafa waroon na jël ay matukaayam ba mu mat jël ay nit yoo xam ne spécial la ñu ñoo ñuy defal liggéey boobu donc xam nañ ni jàppale état moo tax ñun tamit ñu jël suñu ay responsabilité jël ay nit ñu jàng teg leen ci table yi ñuy identifier nit ñi donc bëgg nañu état gën ñu si jàppale daaw waaw gën ñu si.